maître Khoureychi Ba ñu ngi lay nuyu. am ah, na ñu fay am nañu mbégte dalal ci um, matinalu réew mi wara a waxtaanee uh, mbiru Guy yu Sagna sa boobu nga xam ni uh, dafa génne ab uh, lettre ci altine bi la fës en tout cas ci yenn kaay yi di ci wax ni ñu ko teewee ak itam gis-gis bi mu ci am yow bi nga ko jàngate ban gis-gis aussi nga ci am. su amee betteel nag c'est parce que une fois bi doon na lettre lettre bi lëmbee woon réew mi lool parce que boobu rëbës la nekk bi yoon nag lettre bi daf ko nekk euh, ci camp pénal ci condition yu bon parce que fi mu nekk dafa doon prison bu jafe bu métti métti métti ci euh, waxtu bi ci ci journée bi ñetti waxtu rek lay lay gis euh, jant bi ci lay génn ensuite condition yi mu nekk ci camp pénal boobu ci 6 ci quartier sécurité bu nekk Euh, doy na waar doy waar bi xam ne kenn mën la ko nettali ndax terroriste yi a mag foofu la leen di tëj waaw mu nekk ci chambre yu métti su ko génnee lettre ba bi wër àdduna bi yëpp euh, pour man bon c' est vrai que mbégte la parce que surtout euh, moom li ñuy wax esprit moom ku ñu tëj la mais tegul boppam ni mu ngi ci kaso bi. Hmm. te li ko naqari toujours dana fexe nit ñi nit ñi ko nekk ci biti xaritam ak mbokkam yi ak mu àndal ak ñi mu àndal itam xam ni mu ngi suivre débat bi te am na mot a son mot à dire ndax am na lu mu war a wax xalaatam te xalaatam dawaatu kàlla doy na war daal fi ñu ko teg ñëpp xalaat kenn mënul xalaat ni mën na dem bay def lu mel te def na ko mm-hmm. bon pour wane nii donc effectivement surprise am na ci mais ci kaw loolu mu bind euh, du mbetteel parce que euh, dafa nekk ci biir euh, ci biti muy dégg wax yu yu doy waar moo tax ma commercer waaw man du ma commercer mais sama génn suba ñuy wax ni kii de deal la wala maanaam comme am na ñu fi génn ñu ne day arrangement la woon. Hmm. politique la déedéet moom lu ci lu leer la bëggoon nit ñi kii moom hmm. d'abord nee na kenn du ko nekk fond de commerce kenn maanaam kenn du ko échanger liberté am ay nit yi nga xam lu ñuy wut di ko jaaree ci moom. Hmm. te aussi itam comme Sénégal la doomu réew mi juddoo fi màgg fi dee bëgg ñu suul ko fi. kenn mënu ko déporté tudd na sax Kébiseba suñu doom boobu nga xam ni. dafa ñëw fii ñu ne doo dugg moom mu ne moom comme Sénégal mu ngi sant kenn du ko mën déporté ndax loolu yoon mayu ko kenn dafa ñoo bokk Sénégal bi. cela dit il fallait mu wax euh, xalaatam ci li am ni bon ñun personnellement man de en tant qu'avocat en tant que. sénégalais aussi kontaan na ci ça il faut que aussi liberté d' expression euh, biñ koy refuser ba tey gis nga ni nit kenn mënu ko refuser liberté d' expression. Hmm. foofu daal lettre bi dafay wone ci sax xalaat ne gii kenn mënu koo tëj. kenn mënu ko tëj parce que ñi ko ñi ko ñi ko tëj tey jii nga xam ne dañ koy fuyee di ci condition yu doy waar ñoom seen bopp euh, fexe nañu ba lettre jaar seen loxo ba génn. lettre fu mu jaar be génn ba àgg ci journaux yi ba journaux yi tas ko mu wër internet wër àddina bi yëpp yàlla. mais aussi ci problème sécurité dafa wane ni ñoom seen système sécurité bi du dara. waaw budget yi fa def ak moyens yi ñu fa def formation yi ñu def bitim réew ci affaire terrorisme pour denc terrorisme ak yëpp terewul lettre génn na foofu. Hmm. waaw te xam dañ koy tëj maanaam ñaar ci ci vingt quatre heures dañ ko tëj vingt et une heures ñetti waxtu ñuy génn fexe na ba génn. visite moom bul xam mercredi xam naa na visite. Hmm. parce que visite am moom dañ koy compter te barewul. mais fexe na ba génne courrier bi macha allah nga xam ni kii kenn ko exprimé wu. te hmm. loolu lu jar a sant yàlla parce que affaire expression moo tax ñu yóbbu ko foofu yaakaar buñ ko fa tegee c'est fini bu fa jógee day nekk yaafus ba nga xam ni ken dootu ko dégg. Hmm. te la wàllu ga a ay. te li mu wax nag. mu interpellé ñu ñun ñëpp parce que ñun dañu nekk ci jeexi jaaxa. Hmm. ñu rek dégg ni am na ñu jël avocat. ñooñu ñu xaritu. waa FRN front de résistance. ñu ne front de résistance. pare di ko wax ci kaw ñëpp di ko dégg. Hmm. ma ne ñun ci ban dëkk la ñu nekk léegi. bon ñuy seetaan parce que ñu ngi déglu ñun dégg nañ ko rek comme ñëpp di déglu di suivre ba ñu ah, jël nañ avocat ñun tam comme ñu dañu am suñu règle professionnelle en tant qu' avocat suñu xel dal na ñu ne avocat de bu ñu ko jëlee ndax avocat booy dugg ci dossier bu ñu la am na avocat la ci jiitu. Ah loi bi organiser règlement intérieur avocat dafa ne da ngay woo avocat wala nga bind ko nga ni ko ah, man de diw li ngay défendre na naa dugg ci dossier bi lu ciy sa xalaat. parce que kooku avocat bi la jiitu mën na la ne bëgguma nga dugg ci dossier bi. Mm. wala mën na la ne bañuma nga dugg ci waaye man dafa war a fay te fayaguma te boo duggee man xaw ma mm. mm. ne ni ñuy wax rek ku la jiitu ci nekk moo lay wax nooy toogee. absolument ki la jiitu ci nekk da ngay mun la bismillah nga kii mais yow du dugg ci ci dossier yow dugg sax ci dossier bi nga jaar wër ñëpp wër ñëpp ndomba jël sa këyit nga ni ñëw ci juge bi ni ko génneel kii ci kaso bi mu ne nga génne ko. teew kon demande liberté provisoire bi maître Amadou Sall déposé na ko leer na. déposé na ko loolu leer na parce que xam nga aussi bu ñuy dégg yu mel noonu. ak mm-hmm. ñu ñuy laaj di ñu laaj foog am benn moment foog nga laajtee. Mm-hmm. bon nga woo kilifa bi ni ko yow da jot lettre kii mu ne ah wax dëgg yàlla la de ana lettre bi xam ngeen lettre lu fi yenn fanaan ni ko règlement journaux yi mu yor ak site internet yi mu yor liy liggéey ak moom nga xam ne ñooy annoncé toujours décision bu procureur avant mu koy jël mhm. ñooñu ñëpp nee nañu demande bi ñëw na procureur du bañ après nee nañu ah demande bi sax procureur nangu na demande bi wàcce na gii bàyyi nañ ko gis nañu ci Facebook bi ay page ay kii ci internet ñu ne ah gii ba génne lañ ko guddi boobu mënuñu sax nelaw mënoo jaamu yàlla mënoo nelaw booy toog sax ñu ñu lay woo waaye diw dégg nañ dafa génn xam nga dafa metti aussi mhm. bon bref dégg yëpp yooyu yëpp mu koy dégg aussi dafa am ay mbokk ay xaritam mhm. bon loolu moo tax xëy na mu décidé génnee di mais c'est une très bonne chose parce que li mu génnee nii wane na lii vraiment bàyyi leen seen yëfu politique yu ñàkk fayda yi man kenn du ma politiquee mënuma nekk bëgg sama réew coo coono bi ma nekk nii di xeex yenn ay yeneen nit di ma politiquer pour li ci mën bu dee loolu liberté boobu soxlawu ma ko te loolu nag neex na. bi bi loolu xewee ba tey ko biñ ko téye dañu euh, avant ñuy bañ liberté provisoire bi mu fi nekkee ne day grève parce que dafa bëggoon ñu jox ko règlement intérieur bi. te bëgg na aussi ñu may ko accès au téléphone bu mu def grève de la faim tant que jullit. tant que père de famille en tant que avocat am dem naa ko seeti ma ne ko man ñëwuma pour wax la nga grève de la faim parce que magum jëm booy grève de la faim damay respecter sa condition mhm. bëgg naa xam ci yan anam nga nekk li ma la gisee ñi nag mboq sonn nga trop boo gën a def soo ma ko laajoon man man la arrêtal grève de la faim bi parce que ñu doon def grève de la faim xam nañ leen te résultat yi am xam na ne fii ba ngay dee rek da ngay perte mhm. wax dëgg yàlla soxla nañ la mhm. parce que askan soxla na la sa famille soxla na la sa doom soxla na la sa waa bu waajur bu jigéen ñëpp soxla nañ la sa waajur bu góor ñëpp soxla nañ la waaw arrêté la mu ne ah man de mënuma arrêté ci condition yi ma ne ko wasalaam ma ne ko nag bul ma mere yow xam nga lu tax gisoo ba tey mu ne waaye xam naa ko te ànd naa ci parce que man dama man mënuma mësuma gis avocat musul bu musul gis juge buy téye nit ci instruction détention provisoire ngay boo ko ci camp pénal maanaam fu ñu yóbbu ñu ngi condamné mais loolu loolu loolu kenn musu ko gis te nag dafa nekk faute bu grave ñun nag man dama doon avocat yi profession libérale la ñuy def kenn du forcer sa morom defal lii defal li man de dama leen jiitu ci liggéey bi nii laa ko gisee man du ma client amul benn client ma jaral ma koy seeti ci condition yi. parce mm. que dama a ëllëg pour ëllëg ñu ne waxoon naa ko moom ko ñëwee fa dem nag on en phase xam naa ko bu baax xam na ma su ma jikko waaw ndax gi procédure yi mu am ci Sénégal amul avocat bu ko défendre autant que moi. Mm. solo nag ñu koy wax sur le les toits xamante nañu bu baax. Mm-hmm. doom euh, doom euh, laa ko jàppee mu jàppee ma waajur waaw ñu bokk combat bi parce que Sénégal bi ñoo ko bokk. ñoom bi nekk xale bu ndaw ñu ngi woon ci combat bi donc tey jii bu ñu leen jàppalee hasard amul. Mhm. voilà mais quand euh, baax na ci conditions yi euh, ñu préciser euh, lii am dafa interpeller les autorités parce que kii bi ñu bëgg a confiner tëj ko tëj gémmiñam mënuñu ko te wane la wan na leen ko ndax lii ñoom bu dee état bu responsable la kii dañ koy reproché dem na ba laal gris palais tey jii moo gën a garaaw. te du ma ko enfoncé xam nga man avocat la mais lettre bi génn nii nañ ko nañ nañ ko càmbar seet mu jaar di génn daal ci internet bi. lettre bi justement wax nga sànq légalul te tam euh, xel sax euh, nangu na mu bañ a légal ndax dañ koy tere donc euh, mais ndax lettre bi maître du indi xëy na wàññi bu doon naroon nañ ko bàyyi ndax mënu ci yàq dara. non non gëmuma ko lettre bi sax c'est pas légalul xam nga lettre règlement bi dafa ne détenu bu bind lettre. dafay am fu mu jaar ñu censuré lettre bi mu jaar ci kilifa prison bi bu tàngee sax kilifa prison mën na ko jox directeur administration pénitentiaire ñu seet yooyu jaaru ci effectivement donc lettre bi am na fu mu jaar nga xam ni génn na daal loolu mooy résultat bi bon défi la parce que ku defe naa ku dem ba laal la biir na sa lettre tam yàlla mën na def tam aussi euh, jinne la xëy na ñu dimbale ko lettre bi génn <laughs> léegi nag bu dee bu dee ñoom dañ ci bëgg a pour mu bañ génn prison ñoom ñoo xam mais bu dee ñoom euh, coono amaguñu coono ci détention wu gii te bëgguñu moyen pour gii génn ñoom ñoo xam te l'essentiel gii moom euh, yoon téyewu ko fa di ko fa téye leneen la waaw su dee nag dañ bëgg prétexte ci lettre bi wala nexee ñu jël ko lettre musul nekk prétexte dama leen fàttaliku ni lettre bi mu njëkkoon bind rëwës bi mu ko bindee mais mais dénoncé ak générosité les conditions de travail même de l'administration pénitentiaire mm-hmm. di moom gardien yi la gën a yërëm que moom prisonnier mm-hmm. mais ñaari fan la def ci prison bi dafa génn donc bi warul mën tere mu génn au contraire mm-hmm. lettre yàq de fasul lu dul wax rek ni carrément ni am na paradoxe ci Sénégal bi parce que ñiy sàcc alalu réew mi dañ leen di protéger victime ñooñu nga xam nag mooy baadoolo ñu leen tëj ci kaso bi loolu wax na ko su leen loolu am na ñi nga da ne daf bu yeboo ñu ñu continuer ko garder waaye mënuñu tere nit ñi bi seen biir néeg ba ci biir tool yi ba ci biir maternité yi nit ñi xalaat ni loolu moo am mm-hmm. injustice mënul weesu li ñu def xale bi ñu bàyyi ko mu génn nag moo gën mm-hmm. ci anam nag yi nga xam ne aussi rafet na mm-hmm. ñu ko génne ci anamu politicien parce que ñi gënoon kontaan ci jàppam tey ji mënuñu toog ni dañuy œuvrer pour libération du yenu maanaa te aussi heureusement ñëw ñu koy yore pouvoir bi xam nañu loolu ndax boobu combinaison politique la te ñoom ñoo ko bañ parce que bu ñu ko bañuloon jii tey jii avant ñuy def marché bi ndax ñoom seen ñëpp xam nañu ni mu demee. Mm-hmm. Sénégal lañ ko ñëpp marché ajjuma bi. Mm-hmm. dañu prévoir woon ni ci guddi ajjuma bi wala ajjuma ci suba aussi gii na génn. mais am na mooy am boo di bénéfice bi te loolu du leen ko may ah léegi xëy na ñu ngi xaar beneen contexte bu gën a euh, yemb bu ñëwee mu ñëw ñu bàyyi ko mu génn. mais ñun amuñu benn sikki sàkk que kii dañ ko bàyyi mu génn parce que suñu ko bàyyi mu génn mm. dana génn ci beneen façon te boobu kenn ñaanu ko te aussi ñëpp nee nañu ñi ko xam ñi xam prison boobu que wax dëgg yàlla ah en tout nekkul ci sécurité totale bi mu mën am ci bu nekkoon ci këram wala nekk ci biti prison mu ngi ci loxo ñooñu dañu am responsabilité. ba tey ci euh, ci wàllu woowu ñu bari ci ay observateur nee nañu xëy na bu ñu ko teewee nii ci kaso bi ak façon bi ñëpp wax ñu bañ ñuy demander liberté provisoire ñuy bañ euh, dafa fekk ne dañu ko bëgg a jox leçon maanaam dañ ko bëgg yar ngir xëy na bu génnaatee bañ a dellu ci li mu ne woon euh, yow est-ce que am nga ci boobu gis-gis. non amu ci boobu gis-gis te ñiy wax loolu ñooñu ñooñu dañuy wax rek dañu xamul d'abord dañu xamul ki ñaaroon affaire gis nga gi bii mooy fanweer ak ñaar. yoon ñu koy téye muy fanaan police wala gendarmerie wala prison te àdduna wépp nii la te yëpp ci wu jàmbur wala combat wu Sénégal lay dugg mais bu doon lool du àgg foofu te gii gisuma ah àdduna de gudd na tànk trop wax dëgg yàlla suba du añ du reer waaye suba du añ du reer waaye mu ngi daal li am suba yàlla rek ko xam hmm. waaye gii mii ku yaakaar ne lii moo ko yar bu de yaruwul da nax sa bopp lii mënu ko yar au contraire parce que xale la bi nga xam ni bakkanam may na ko Sénégal hmm. may na ko askan na xeetu nit ku ñuul may na ko Afrique activiste la loolu la xam fonctionnaire la pourtant koo gis doo ne fonctionnaire la sacrifice yi muy nekk. a eh, ni ngi doon wax ne boo maytuwul ñu radié ko. waaw radiation xëy na bu dee dem nañu ba seen cynisme dee na noonu ak seen coxorte ñuy parce que radié ko parce que li muy liggéey gii fu muy dem c'est un travailleur social mais mu dem on lui donne pas les de travailler. Hmm. fu mu toog ñu affecté ko amul sax siis bu muy toog dañ koy dàq ni ko demal sa kër sa salaire am lay kii te loolu nit mënu ko dundee moom déjà c'est un radié en puissance hmm. tey ji bu ñu jëloon nii léegi dañ lay radié fonction publique sax mais kii radié nañ ko bu yàgg bu nañ ko bëgg nañ lay dootoo liggéey mais yoruñu ko hmm. te kii euh, noobal na famille bu bokk nit ñu baax lañu ñu tedd lañu il se suffit de peu aussi du liggéey bi moo moo moo ko tax a dund kon suñ ko rajee woon tam dañuy boo newaat seen kanam rek kenn dara waaye loolu radiation man gëwuma sax mu war a toog ba loolu di am te aussi ñu ñu jàpp ko ci anam yu leer déclaré ko coupable condamné ko ba nga xam deful dara ba tey ji Amnesty International ak kilifa yu gën a mag ci droit de l'homme yooyu nag Sénégal yeewu leen nag te ngeen bàyyi kii deful dara yéen a ñàkkal fayda seen bi ngeen wone rafetul anam bi ngeen wone ci àdduna bi rafetul génne leen kii kooku rajee ko buñ ko rajee yoon dana koy joxaat place am na ñeneen fi rajee te incha allah bu jotee tam ñu réhabilité leen rek yooyu du dara ay soxoon la rek amul benn njëriñ. lii mm. conseil yooyu dañ ko war a bàyyi di conseiller nit ñi ay radiation beneen nga xam ne yow joxoo ko jumtukaay mu liggéey joxoo ko salaire bu baax liggéey moom ci benn bànneex léegi nga ne ko dañ lay rajee far ndax yaakaar ne day yalwaan kii du yalwaan ndax yàlla du seetaan nit ku mel ni kii yalwaan hmm. bés bu yalwaanee nga xam ne Sénégal ñun tos ko reddal nañu ñun yëpp ñun ñëpp yàqu nañu ko kon ñun fu ñu jëg du yalwaan de du torox bu du torox parce que kii mënul sonn ci réew mi nii di xeexal jigéen yi di xeexal góor yi di xeexal mag xeexal ndaw yi mu jaral ko lu nekk bàyyi jam benn doom la bu jigéen xale bi toujours loolu sa pap mu ngi dem muy kaso ba an sa an sa yaayam doom travailleur social la hmm. ah sociale Sénégal xam nañ ko ay ay ñu baax la ñu tedd la ñu yaru dëgg yàlla tooñu kenn yàlla ay te ñuy souffrir gis nañu sax dem ba jooy ci kanamu caméra yi ñu gis papaam ah, mag bu day noonu maanaam macha allah dem bi jeex mu jooy keroog kuy kuy kuy jur doom jooy nga waaw waaw maintenant hmm. soxna si waaw appelle Guy Marius bi mhm. te je me parce que ci camp yëpp partout dans le camp présidentiel partout dans l'opposition ci parti société civile ci bus yi école yi bég partout nga ba ci euh, fetu xale yi. waaw mardi gras bi. mardi gras déguisé avocat damay défendre kii Maris li daw na yaram. Mm. te li neex na aussi ci ci réew nañu sant yàlla bu baax. Mm. te moom mu ngi dund loolu vraiment avec beaucoup de hauteur moo tax ñuy wax ay dañ koy yar yi noonu yéen compris moom moo leen di yar fu mu nekk nii. Mm. moo leen di woon yoonu gestion scrupuleuse des des deniers dans un pays ak développement réew fu ñu war a jaar fu mu développé. ñun jooyu jooyu ñu Sénégal jooyu ñu parce que dëkk bu ko yàlla mayee ku mel ni Mamadou Dia ah tey ji ñu am xale bu mel nii bu jarul sax ñu ay ay. ay Sankara wala ay Laurent Gbagbo Guy Marius rek doy na xale bi ñëw nii euh, Kémi Séba ñu bañ ko rencontré xamuñ nañ xam nañ seen relation ñoom ñaar Kémi Séba su gisoon Guy Marius wala ñëw ba ci kan buntu prison Guy Marius taxaw fa rek julli fa ñaari ràkk rek mm. pour moom dem na màkk ba ñëw yooyu yëpp gars yi xam nañ ko état noonu lay fonctionner moo tax ñu ne kii du fi dugg parce que bu fi duggee daf ci yokkal fitna. waaw mm. ah, sant yàlla ci Guy Marius pare ñaanoo ko mu génn kaso bi continuer liggéeyam pour Sénégal ak pour famille am. Mm-hmm. macha allah. jërëjëf maître Khoureychi Ba. jërëjëf soxna ñu lay gërëm amoon nañu mbégte dalal la ci matinale ah, réew mi. man man itam ngeen baal ma su waxee xool na. jërëjëf non non comprendre nañ la. jërëjëf maître merci beaucoup ñu yendu ak jàmm.